ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne nii yéenay suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dala laaj ci seen jàngat bu bees ñuy dellu si waat nag ci li nga xamante ni mën nañ ko sax léegi jàppee deal du siècle maanaam nax gi Abdoulaye Wade ak Macky di nax sénégalais yi lu tax nag ñu dellu si ci sujet boobu noonu mooy Macky Sall dafa dalal Abdoulaye Wade ci samedi gii ca palais présidentiel pour ne dañuy waxtaan d'après li ñu wax ci mbirum sénégalais yi. mais à la base comme niñ ko waxé won rek li leen a moy sen intérêt personnel loolu expliqué won nañ ko ci vidéo bi mais dafa am bénn bir bo xamanteni qui ñu marqué ci ndaje gi Abdoulaye Wade Macky Sall muy ni que Abdoulaye Wade dafa né Macky Sall mi ngi gérer bu li pétrole bi ñun nak ni ci Abdoulaye Wade mais musuñu dina soppi gisin soppi xalaat na ci mbir bu doyni pétrole bi pétrole boobee nga xamante ni scandale bi ñëpp xam nañ ko moo ñu dellu si waat ci dil bi nga xamante ni dox na diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade parce que ñun ñëpp xam nañ ni Macky Sall bu jógee ci réew mi daañu ib ab enquête pour que ñu leeral li nga xamante ni def nañ ko ci suñu alal moom ak rakam mu yàllu Sall mais seetlu nañ ni dafa benn scandale boo xamante ni ñu ngi koy waajal ci pétrole boobee pour que Kari Wade bis bu faloo ci bop rew mi mu bay lepp mu sedd manam scandale yi nga xamanteni ni nguuru Macky Sall def nako ci suñu pétrole actuellement jamono ji lol la Abdoulaye Wade di préparer ak Macky Sall netali nak ci lamiñu borom la daké da leen di bayyi ngeen tuglu Abdoulaye Wade ak Macky Sall lan lañ jibulon ci cadeau gannaaw sen ndaje bi nga xamanteni ni palais présidentiel ci samedi gi ci waxtanu tay bi ñaari président yi waxtaan nañu ci ponk yi nga xam ne ñoo jàpp ci situation politique réew mi yi nga xam ne bëri na waaye mën nañ ci jàpp rek question yi nga xam ne ñoo lié ak li ñuy wax processus électoral bi lu jëm ci statut du chef de l'opposition ak yeneen ak yeneen yoo xam ne jàpp nañ ne bis na ko tey daañu ko dugal ci li ñuy wax dialogue national bi waxtaanee ko foofu pour sénégalais yépp joxe ci seen xalaat le président Abdoulaye Wade def na itam ay recommandations yu am solo yo xamné daf ko defal ki di le président Macky Sall pour que mom ci liko yalla denk muy nguuru Sénégal mu euh, déployer moyens yi mu am yépp ak effort yi mu am yépp ba nga xamné li ñu bok muy pétrole bi muy gaz bi ak yenen ressources naturelles bi nim ko teyé baxna na mu gën ko teyé ba Sénégal yépp gis ci sen bop li ñu bok muy pétrole bi muy gaz bi ak yenen ressources naturelles bi ni ko téye baax na mu gën ko téyee ba Sénégal yëpp gis ci seen bopp ni mu ko téyee baax na mu gën ko ba Sénégal yëpp gis ci seen bopp. a ko déggandoo Abdoulaye Wade nee na Macky Sall ni nga téye pétrole bi baax na mais yokk ko ba Sénégalais yëpp gis ci seen bopp. ni ko téyee baax na mu gën ko téyee ba Sénégalais yëpp gis ci seen bopp. yaakaar nañu nag lii ku mu choqué wul dara dootu la choqué ti parce que li yéeme ci mbir bi mooy ay weer ci ginnaaw. kaddu yi la Abdoulaye wad doon wax da leen di bàyyi ngeen déglu wax yi nga xamante nii moom ki fi nekkoon njiitum réew muy Abdoulaye wad yëkkati woon na ko ci anam gi Macky Sall di gérer suñu ressources yi rawatina nag kaawu Aliou Sall bi nga xamante nii moo nekkoon intermédiaire fàtte xaju fi da leen di bàyyi ngeen déglu ko ñu ñëwaat. ma ñëw ci affaire pétrole bi affaire pétrole bi du ma ci sore. lenn rek laa ci xam ci loo xam ne de kenn du ko weddi Aliou Sall di frère Macky ñu jox ko permis exploitation pétrole exploration exploitation Saint-Louis et Kayar mu dem ànd ak ay ñeneen waa bit yum réew

30 pour cent oui absolument 30 pour 60 milliards à lui action yi mu am ci société bi bu ko neexoon ëllëg mu dem New York wala Toronto wala fu am bourse rek mu jaay ko fa def xaalis ci te moom du pétrolier du dëgg qualitéem rek moo di frère Macky Sall loolu da wax ni sàcc la sàcc sàcc la sax confirmé naa ko lu tax parce bu nit jëlee alalam def ci koofaram tëj ko nga ñëw tijji ko jël ko du loolu moo sàcc Sénégal ci biir suuf si lu tax nag ñu bàyyi leen ngeen déglu audio bi parce que ñenn ñi mën nañ jàpp ne Abdoulaye Wade dafay naax naaxul jinne jàpp ko xelam moo gën a baax ñun ñi nga xam ne ñu ko gën a féete ndaw. c'était juste pour wan leen ni Abdoulaye Wade lépp lu xew ci pétrole bi xam na ko maîtriser na dossier bi parfaitement parce que ci nguuram la tàmbalee laata Macky Sall di doon njiitum réew ci biir bi dégg ngeen explication yi nga xamante ni joxe na ko ci kaw Aliou Sall bi et lan mo tax ñu impliqué ko dugul ko ci affaire bi donc maîtrisez-le dossier boobu noonu. légui nak Abdoulaye Wade Bobé, mo taxaw tay ne Macky Sall ni mu gérer li nga xamanteni pétrole bi dafa muccu ayib jaar na yoon amul dara ci ay jafé jafé donc ñun vidéo yi nga xamanteni ñu Abdoulaye Wade ñi sax na nous nañ ni dañuy acharné wu ci mais kese lañ ci jublu won dañu bëgg sénégalais nit ñu mel ni bëgguñu réew mi nit ñu mel ni Abdoulaye Wade chaque fois bu ñu jëlee ay position pour Sénégal dañ ko jël parce que dañu am ay intérêt yoo xamante ni ñu ngi koy défendre ñu koy sàmm te li lépp li muy wane mooy bépp position bi Abdoulaye Wade mësa a jël rawatina ci kaw pétrole bi defu ko woon pour intérêt réew mi defu ko woon pour sàmm alalu réew mi daf ko doon def pour tàngal ni rek ëllëg mu jéem a am deal ak Macky pour xool naka la ñuy tromper ndax ñi nga xamante ñoy population bi mais nak ñi nga xamante ñi ngi suivre évolution géopolitique fi ci Afrique ak histoire dugg africain yi li du len bett ci Abdoulaye Wade parce que bu ngeen fateliko mom la France utiliser woon biñu ñu bëggee éliminer sakal pexé ki nga xamni moy xadafi pour que lan mu defal len ab sal boulot Abdoulaye Wade wu rek ci wor Sénégal mais dafa njëkk a wor Afrique gannaaw ba mu comploter contre Kadhafi bi nga xamanteni dafa amone projet pour Bolé Afrique pour que deuk africain yi mën di coopérer di lokolo di lebalante xaliss baña dépendre ci européens yi. loolee lépp bu échoué Abdoulaye Wade amna rôle bu mag bu mu ci jouer parce que mom la français yi utiliser won pour reylu Kadhafi donc ku mëna comploter pour ab continent wu leum do baye ben deuk motax tax doxalinu Abdoulaye Wade tay du ñu léegi nak fokk ñu xamal Sénégalais yi lan moy prochaine étape dil bi nga xamanteni ni dox na Abdoulaye Wade ak Macky Sall manam ban pàcc moo ci tegu étape prochaine bi nak moy ndëbb bép scandale bép njombé bo xamanteni xewna ci pétrole bi manam Macky Sall bis bu démé ba nekkatul président parce que 2024 du mëna a présenté wu bu jalgatiwul yoon dañ koy fàttali. bu ko défé bu fi jógee ñu bañ ko top pour haute trahison mom ak rakam bi di Aliou Sall. Et pour loolu il faut que Idrissa Seck bañ président parce que buñ ko falee mieux ñëpp lay tëj ci kaso bi loolu moom dafa il faut que tamit Ousmane zongo banyanek président parce que xam na lobby yi nga xamanteni ni nguur gi fi nek ñu koy def te bis bu jité réew mi dina tok Macky Sall pour haute trahison mon ak rakam donc palum Ousmane Sonko ci biir réew mi arrangé wul régime bi nga xamanteni mo fi nek motax plan bi moy jëm ko tëj kasso wala empêcher ko mu présenté wu en 2024 bëgguñu tamit aussi Khalifa Sall nekk président parce que moom tamit bu fi faloo forcément de djema a li nga xamanteni moy revanche manam djema fayu ci liñ ko jaay doole tëjlu ko té lolu pour mu antu mën na jaar ci affaire pétrole bi wala yeneen dossier parce que nguru Macky Sall moom liñ fi def ci njombé du xaaj du jeex mën na leen top ci lu ne. gannaaw loolee lépp nak kenn kessé benn doomi adama mo mën sauver nguuru Macky Sall jamono jii koo xamante ni buñ ko falee mun na teg lépp ci suuf mooy Karim jamono jii Abdoulaye Wade lenn la mën a garantir Macky Sall mooy su Karim Wade faloo doo dem kaso sa rakk du dem kaso ñi nga ànd ak tamit du ñu dem kaso mooy dil bi nga xamante ni instant yi moom la ñu bëgg a nas moo tax Abdoulaye Wade ne lépp lu am ci pétrole bi jaar na yoon Macky Sall ni mu ko géré mucc naayib bu ko defee nag sénégalais yi ci boppam bu ñu bàyyee complot bi jàll ñu xam ne ñun mérité wuñ am président bu baax mérité wuñ profité ci suñu pétrole mérité wuñ génn ci li nga xamante ni mooy ndóol ak tumuranke mérité wuñ suñu réew jëm kanam dil bi nga xamante ni Macky Sall ak Abdoulaye Wade ñu koy nas bis bu jàllee nañu xam ñun sénégalais yi lu ñu def dagan na ku ne après da nga xam foo jublu xool noo ciy parce que ñun ñoo bëgg ku ñu nax ñaari nit pour seeni intérêt njaboot kële intérêt doomam kële intérêt rakkam ak moom avenir am ak ñi nga xam ne ñoo ay allié ak ñi nga xam ne ñoo bokk parti ku ci nekk say intérêt bopp nga bëgg a ñaari jëmm yooyee ñoo jël en otage askanu lëmm askan boobee nag bis bu ko nangoo na xam ni luñ ko yan rek attan na ko te mérité na ko itam. donc vidéo bi tey loolu la woon duñu mës a tàyyi ci ñi nga xamante ni chaque fois ñi ngi xool naka la ñuy lëñbatee di teg dil askan wi. di leen ndax jàppe leen ay nit yoo xamante ni tekkiwuñu dara duñu tàyyi duñu mës a sonn ci di leen dénoncer pour yee askan wi nga xamante nii lu ne ñu koy def ci seen ndodd te malheureusement ñoom xamuñu ni mbir yi demee donc ñu ngi di gërëm di leen jaajëfal di leen jox di daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf